même suñu gisee ay manquements comme le cas de Boy bi nga souligné il y a yu am effectivement mais peut-être dans les détails waaw parce que boobu bi ñu xoolee rek ñu gis benn buum ñu bugg ñu gëmloo ne waa ji fa la jaar et cetera tout le monde a compris que y quelque chose qui n'allait pas bii tamit nit ku nga xam ne dañuy wax insuffisance euh, insuffisance rénale la ñu donc c'est tellement sensible que waaw il faut des dialyses donc c'est tellement sensible waaw mm-hmm. loolu nag mooy expliquer risque bi ci nekk euh, peut-être waaw donc ah. il va falloir merci donc il va falloir que nit ki aussi ñu def un bilan daal di xoolaat nit ki bu baax si réellement oh, est-ce que le gars était malade li ñuy wax moom la amoon ak aussi surtout surveillance bi kana kana fa nekkoon nan la def ba génn foofu nan la def ba yegg fi ñu ko fekk et cetera loolu pour ñu def ko il faut il vraiment tamit euh, ñu ñu àtte ko àtte bi nga xam ne aussi ci yoon lañ koy teg et dinañu permettre aussi ñu dellu siwaat ci li ñëpp wax mooy responsabilité individuelle parce que ah. képp kuy communiqué ci ay sujets yoo xam dafa sensible ah, luy taal mais dëkk yëpp gis nga te te ah, phénomène wu le diktat de la pensée unique boobu nga xam ne mooy terroriser ñenn ñi ba ñemetuñ da ngay gis sax li ma arrangé ma attaqué voilà donc y a des intellectuels yoo xam dañuy ragal c'est grave muy ci wax muy ci bind y des journalistes effectivement y des personnages politiques publics mais ñun chance bi ñu am ba li ñu wuutale ak dëkk yi ñu wari loolu la mooy dañ daan discuter. Mhm. dañ daan discuter même bu ñu d'accordul man am na benn autorité ci dëkk yi ñu wër boo xam dañ ci mës a waxtaan mu ne ma daf fi jënd kër parce que daf fi ñëwoon mhm. daal di gis période électorale fa mu daloon kii di jaay mburu ak kii di jaay table dañuy waxtaan ci politique di werante kii far ci pouvoir bi ki nekk opposition mu ne ñoom seen dëkk bu doon ñoom la kii day jël yat kii jël jaasi parce que ñoom dimension boobu tolluwuñu. mais nag Sénégal léegi fa la toll. Ah. non tollooguñu peut-être euh, ci ci ci foofu mais effectivement ñi ngi ci yoon bi mhm. mm-hmm. donc risque bi mooy dès le dès maintenant te loolu ñi nekk ci kaw ñoom ñoo ko mën a dindi mooy ñi am responsabilité ci ñi leen di topp mm-hmm. parce que mbooloo mu nekk aussi dafa am njiit donc njiit yi ci seen responsabilité lay nekkaat ba pare ndaw yi ak ñi nga xam ne dañuy demee passion ñu xoolaat seen bopp xam ne réew mi ñëpp ko bokk ba pare tamit jafe-jafe bu amee déjà ñu ngi dund ay situation difficile donc bu ñu demee ci lu gën a métti encore ñoo ko yëgal loolu sax moo tax euh, gis nga ëttu jàmm ma lay wax nii nga xamante ni si dafa nekk moom ci les questions de paix et de de sécurité et notamment pour des élections apaisées au Sénégal mm-hmm. lépp luy indi kaw ak lépp lu nga xam ne mu ngi indi ki dafay jóg te ñun dañu nekk ci benn kii euh, au centre le dialogue la médiation nañ ko waxtaanee. nañ ko xool loo gis ñu waxtaan ko ak taxaw wax ak nit ki euh, dina tax ba nga xamee si nit ki na apaisé mais taal dafa baaxul te taal nag bis buy tàkk bay tàkk ah, ah. presse bi am na ci yoon laa la wax parce que léeg-léeg ñu relayer lu nga xamante ni gis nga fi mu ne camp ñu ngi nii di relayer léeg-léeg nga gis au lieu ñu relayer yenn yi on tape su le sensationnel hmm. boo ko vérifier léeg-léeg ngeen di contre fu ñu toll nag di contre euh, contre dirante bu tayee kiy wax jëmale ndar kii wax jëmale ndakaaru Doudou Seck ba tey dara leeru ci laa la mhm. wax mhm. ndaxte kii wax na jëm ndak kii wax na jël ndakaaru te nag nga daan gis nag ay fara mhm. ay lu nekk ci ginnaaw ak nag sax particularité ma du sekk boobu ma mu Seck fan la nekkoon ku ko fa yóbbu nu mu def ba dem fa la linge sale se lave en famille mais am na yu nga xam ne du le linge sale se lave en famille quand il de question juridiques le linge sale ne te lave plus en famille ka nga jàpp jël ko il a des droits ñun ñi nga xam ni on a besoin d'être informé population bi lañu en toute citoyenneté war nañ ñoo wax nangam lii pour que ëllëg ñu ragal wala duñu nangam nangam mhm. dinañu ñëwaat euh, ci volet paix sécurité Serigne da nga cee bëgg doon rafetlu balaa ñuy li mu ci contribuer juste rek mooy li ñëpp wax mooy que ni situation bi nañ ko régler une bonne fois pour toutes ko certainement nag conférence de presse dina am pour lever un peu les équivoques administration pénitentiaire waa administration pénitentiaire pour yi si am mhm. parce que lu ñu mën a wax itam mbir mu yomb la itam parce que non seulement résidence bi mu nekkoon ak ville bi nga xamante ni fa la nekkoon c'est-à-dire kii boo xoolee sax da ngay naan est-ce que fa mu nekkoon doonu fa noos en fait c'est-à-dire bu fekkee il y a une complicité bu am si mbir mi je pense que point de presse conférence de presse bi nga xam ne dinañ dina lë war na mën a leeral yenn yi war na ko mën a leeral ña ko nëbboon Touba sax dañ leen a war a jàpp kër la mu nekkoon Touba ñooñu waru ñoo moom war bu fekkee enquête bi mi ngi en cours ñoom bu ñuy def seen conférence de presse <laughs> loolu dinañ ko leeral dañ ko je pense que Sénégal yi actuellement foofu lañ leen di xaar ni ñu ko gisee hmm. dama ne da xamu leen ndax ban photo lañ leen won hmm. ça aussi il faut faire attention ndax ñu ngi naan ne euh, photo bi mu nekkoon ak euh, ni mu mel noonu noos yow yaa ngi wax le mot noos tension hein euh, am na yu nga xamante doo ko wax sax di ko jëmale ci nit ki nga xamante ni moom mi ngi ci ay loxo mi ngi ci ay euh, pexe ñun dañoo xamul maanaam mi ngi nekkoon ci lu ngay daal di da ngay ñëw di strapoler mm-hmm. te liñ ñu ci euh, won ak liñ ñu ci kii ak photo yañ ñuy won gis nga foto booba sax jan naa xool moo tax il faut faire attention ñu authentifier photo nga xam ni gis nañu ko mm-hmm. mais nag ay nit jaxaran nag ñoo fi nekk nag ak ñu xam loolu d'accord d'accord auditeurs yi ak internautes yi ak téléspectateurs yi ci seen émission élection assemblée ñëpp a ci bokk ñu fas yéene nag waxtaane beneen thème thème lié justement à la politique euh, parce que dégg nañu ku ci mel ni Ousmane Sonko ne euh, liste yi nga xam ne ñooy bokk ci élection législative yi liste yëpp ba mu des Yewwi ak Wallu Euh, ay listu du genre Macky Sall parce que moo leen financé xam naa ne nag moom wax na wax ji mais gars yi ñeneen ñi tam wuñ ko noonu parce que ku ci nekk ne ak euh, na nga ko tontoo te ñi ko tontu rawatina ñoom la bokkal euh, langue politique bi. buntu bi j'ai j'ai envie de vous de vous demander soxna Leila bi ngeen déggee coow loolu jóge ci benn leader beneen opposition bi di ko tontu mu nekk genre xuloo wax na dëgg waxul dëgg et cetera et cetera. pour lan nan nga ko jàngatee xam naa yéen war na leen jaaxal. xam nga def naa yàgg naa wax euh, ne Ousmane au début c' était un pervers euh, mais léegi dafa dépassé foofu yëpp di dem. il y a vendredi passé j' étais à un plateau et je parlais nan laa gisee. Euh, nawet bi taw bi et tout ñi fi ñëkkoon a nekk et de des gens m'écrivent message messages pour me dire que non yow opposition nga waroo dal opposition bi mais loolu ban genre réflexion la c'est pas parce que je suis opposition que damay accepter li keneen di def. surtout bu baaxulee wala àndut ak ci sama ci sama conviction. surtout la mu wax daf ko teg ci ay deru naataangoom yu opposition. voilà man sax lool laay def des fois parce que damay gis loo xam ne jaaduwut Ousmane def ko wala keneen ak keneen ma critiquer wax sama xalaat. d'accord mais mais mais d'abord euh, wax ji mu wax est-ce wax ji na. man maa ngi ko déggee dama lire j'ai lu mon ami et frère euh, je suis dans un groupe. gisewu ma ko sax suñu groupe bunt bi maa ngi ko gisee ci beneen groupe j'ai lu mon ami et frère Bokoum Thierno Bokoum euh, honorable mhm. bi ma ko liiree gis mu ton ma ne lan moo xew après ma gën a liir ñu expliqué ma ne ma Ousmane nee na opposition bi ba mu des wallu ak Yewwi euh, ils sont euh, avec le président Macky Sall voilà bon mhm. dama ko bëggoon réfléchir tuuti la mémoire moom Ousmane moom Ousmane mhm. dafa ànd ak ñoo xam ne ñooñu ba ñuy ànd ak Macky Sall moom judduwut wala ba ñuy nekk ci gouvernement yor état moom judduwut wala bu juddoo ci lay yem ndax maa moom a maase. quand on parle de Habib Sy quand on parle de Aïda Mbodj quand on parle de Khalifa Sall quand on parle de ñooñu ñooñu ñëpp ils ont cheminé je pense qu'ils ont fait quatre états je pense def nañ Abdou Diouf def euh, am nañu def sax Senghor def Abdou Diouf def Wade def Macky Sall te pourtant ñooñu la accompagner la ñooñu nga xam ne démb da doon wax ne ñooñu dañ leen a war a fusiller ma fekkee ko parce que j'ai cheminé avec Ousmane toog naa ba tàyyi muy xas ñooñu mu wàcc yàlla ne du ànd ak ñoom première bêtise bi mu njëkk a def il s'est accompagné de Boubacar Camara de Atepa Goudiaby et de Yassine Fall la femme de Jacques Habib Sy kooku kii liñ ko jiiñ ñëpp a ngi fii doog waxuma la jiiñ sax y a des yoo xam ne moom xam na jëkkëram xam na ñun xam nañ. <laughs> yoo jarul wax. non non pour te dire ah. rek pour wala Ousmane Sonko ñi mu àndal. Hmm. te ñoo ñooñu état démb lañ tey soog a ñëw. ñu lekk lu ne nag suñu kaw du ginnaaw yii moom daf dafa bëgg ñu gën a dolli wala mu ñëw tey ànd ak wallu bu du woon législative yi du mës ànd ak wallu bu du woon ak législative yi wallu du mës a ànd ak Ousmane Sonko parce que bi ñuy def local j'étais avec wallu